alors merci de nous avoir suivis amis internautes de Dentale TV bonsoir bienvenue toujours mbégte ak contentement laay am dellu ci waat plateau Dentale TV toog si seesu buur bi jàkkaarloog yéen fas yéene jox lu ton actualité alors avant tout d'abord damay daal di ànd ak waa TV sama tonton waagaan ñu daal di dugg ci hôpital fekk fa euh, maladie yi di leen ñaanal yalla fëgg seen bop bopp ñi nga également ciabi féete na leen ginnaaw yàlla gën na leen fa ñu baña defati lu len fay delloo di nuy kilifa diine kilifa aday yi di leen ñaanal gudd fan wër ak wéex la également te di sàkku si ñoom ñaan bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñu ngi ci lalu hôpitaux yàlla fagg seen i bopp ñi nga xam ne caabi féete na leen ginnaaw yàlla génnee leen fa ñu bañ a defal ci leen fay delloo di nuyu képp koo xam ne suñu follower nga également képp koo xam ne à l'instant yaa ngi ñuy suivre à travers Dental TV alors dama koy euh, tënk tey ci wàllu musique Sénégal maanaam si aar bi euh, euh, ci buzz bi nga xam ne mi ngi am à travers les deux artistes à savoir Wally Ballago Seck Sidi Diop mais li gën a fës mooy keroog gis nañ ci concert Wally Ballago Seck bi qui euh, di njàpp njàpp nak nek un danseur bo xamné c'est le danseur du peuple également mu nek danseur Sidi Diop kérok dafa dem ci euh, concert Wali Blago Sek et c'est normal comme Wally euh, papaam la comme Sidi Diop nekkee papaam c'est normal Sidi Wali bu amé concert mu tagu Sidi Diop dem ci concert Wali Blago Sek bi alors ñu gis ñewna fofu il a fait de l'ambiance fecc mais après dafa ñaan parole ñu don jox ko micro mom jàpp njàpp zo mu daal di ñaan Wali Blago Sek auto. lu waral loolu dañuy bàyyi foofu point d'intégration bi ñu ñu ñu ñëwaat euh, ñu ñëwaat may ma may leen ma ma jël daa mel nii Barito mu ma jël Barito allo mon ami Barito. waaw mon ami. Barito yaa ngi en direct noo def. waa waa delloo siyaar baax Barito bu siiti maa ngi lay soodaat billaahi. mais dëkk bi yow la ñuy waxtaanee temps yi de. ah non. ya ya ak sa patron dëkk bi yéen la ñuy waxtaanee. représentants du peuple. ndeysaan ndeysaan loolu mais Barito. tey sama ay sama ay téléspectateur ak sama ay followers ñoom ñoo la laajte. Uh-huh. ñu ne gis naan wax ji bëri na entre euh, Sidi Diop ak Wally ko Seck. Uh-huh. démb nag euh, def nga benn interview démb la woon je pense xaw ma barki démb. waaw. mais euh, dañu ne am na koo xam ne uli uli Seck nga ko tuddee xaw ma kan mooy uli Seck Barito. ulita kan mooy ulita. Ah, man de bu nekkee game bi daa am ku wax. <laughs> Marido Marido ah, yi ba léegi xamaguñ kan mooy Louta. ñoom bu Barito doomu yëmbal la Barito doomu doomu doomu banlieue la Barito du tapet moom day wax tur bi directement di jàkkum boo ko laajee. ma su ma tapetee ñu barki Serigne Touba. su mooy Louta Barito. mais soo nee Oulita Seck yéen xam ngeen. <laughs> xam mais mais loolu moom man maa la ko ñaar rek nga wax ma Oulita loolu xam naa maa ko war a am. Oulita Seck xam ngeen te bu wax ji gënee bëri sax wax ji bu gënee bëri ñoom bu ñu yamul bu ñu yamul. Ah. dinaa leen gën a escanté dinaa leen gën a gaañ. non Barito ba li ngay wax. famille boobu dawuñ suñu yaram. ndeysaan ndeysaan. ñoom coole li may bëri bëri yëpp ñoom seen kër dafay neex lépp ay doomu si di xoolal nag xoolal. Uh-huh. coole yi moom moom këram mu yaakaar ne ñoo fay liggéey mm-hmm. ñoom ñëpp ay doomu Sidi lañ ñoom ñëpp xool xoola bi nga xool groupe bi ñoom ay doomu Sidi lañ. ñoom ñëpp ay doomu Sidi lañ. waaw moo jiitu Sidi ci aar fuuf. te ku nekk tool waaw waaw waaw bëggoon naa maanaam bien bëggoon naa ñu ñëw foofu ndax Sidi Diop bi mu ñëwee si aar bi yàggul. te Waly ko sekk yàgg na si aar bi ñu dem bay comparer Sidi Diop ak Waly Balago Seck affaire yi jur coow polémique bi di daw yow loo noo gisee noo gisee loolu euh, Sidi Diop ak Waly Balago Seck. xam nga tax waykat yi fi jaaroon ñëpp dañoo boot ci ginnaawam ñii dem ci kanam di uufu mu leen aayoo nene mhm. kii ñëw da koo njuñ si da koo njuñ xam nga njuñ looloo ko métti loolu tamit loolu tamit waaw nit ñëw nekk sarak nga yaakaar bu ñëwee day boot sa ginnaaw mu ñëw bàyyi la fi toog sa kaw mhm. ba boo teg mu tegi teg beneen mhm. gisa yéegi ni mbëri dañ si nekkoon ko sa conseil la soxla yooyu noonu di naxanteeg moom dëgg ba nga Balla Gaye bu ñëwee da ko ne lu waay am te bu mu bëree da koo daan barki alxuraan bëri too wax nga concurrence la lépp concurrence la mais également mon ami nekk Sidi Diop nekk fi di boote ci ginnaaw benn woykat dëgg wër way ëpp ñu ko fit ëpp ñu ko fulla wër nga wax mais également benn buñ ko waaw waaw mhm. am na am na kon tey nag bu leen bu leen defee nii waaw atte bor fay mais mais mais benn affaire daf ma jaaxal ci seen artiste bi allo waaw benn affaire daf ma jaaxal si artiste. waaw mooy moom il est polyvalent ndax gis naa ko benn jour muy rap comme si que moom rappeur la. xanaa déggoo ma la te aussi day day impro. Sidi Diop Sidi Diop ban genre musique lay def en fait kan mooy Sidi Diop Barito. waaw Sidi Diop mooy le centre du peuple ñoom lépp ñoom li ñuy def ci ay ci way ci way mm-hmm. lépp lu ñuy def ci way moo leen ko dàq. ba xoolal. Mm-hmm. bëgg dama la wax benn affaire pour nga bàyyi ci xel. Mm-hmm. gis nga waykat Sénégal yi boo leen ne leen ku mënul way dañ lay rendi barke alxuraan man du ma dégg si gindigaale damay lëng siri ndax xam naa siri day génn <laughs> di rendi mais da ngaa wóolu si artiste eh, siri mais bu nekkee ay way mil te siri day impro yow déggoon ma la ma ko mu way la mhm. mhm. ko ne wayal ma mu wayal la loolu mooy mhm. waykat mais ñoom dañuy taxaw seen jàpp benn tur ay ay hmm. jaga Europe booba jiitoo xaar ma loolu la ñuy woy ba soirée bi jeex. <laughs> loolu lañ xam ci way quoi ñu kenn mënuñu doon nax. dëgg war na wax waaw Sidi Diop suñ mag yi ñoo ko nangul mag yi nekk Sénégal daan woy ñoo ko nangul. Hmm. xam nañ ni kii xale la mais jàmbaar la xam nañ ni kii xale la mais wayla wayla foofu foofu laa bëggoon ñëw foofu laa bëggoon ñëw ndax gis naa artistes yi Sénégal yi en général bu ñu toogee si ay concert wala bu ñuy def interview dañuy ñaan maanaam di di nuyu di ñaan wàllu yaa ngi te Sidi Diop gisuma mu nekk si ginnaaw kenn gisuma mu ñaan kenn yaa ngi sib ba si ba si ba si caat sekk mi passé bu mu ñaanee Waly Seck oto ba loolu indi polémique gisuñ Sidi Diop wax si bu gisuñ Sidi Diop ñaan mais kii di njàpp euh, euh, njàpp doon euh, danseur Sidi Diop moo mujjee dem si bi la ko Seck di ko ñaan oto naka nga jàngatee loolu Barito waaye des fois am na njaboot goo xam ne dañuy génn di añi ji feneen di reeri ji feneen te pourtant yow loolu am nga ko sa kër dëgg bu wër nga wax ndeysaan waa at waa at na moo demee noonu nag ñoom li ñuy ñaani ji ñun yàquñu ko te am nañ ñu mm-hmm. sa place liñ liñ la koy def non man xam naa leen xoolee njàpp démb mm-hmm. ak njàpp tey xam nga ne Sidi Sandé na ko da bu baax dem leen ngeen jël vidéo démb mm-hmm. bi muy naan saba dabara xaw ma si oh. xool ngeen vidéo <laughs> gis ngeen tey ah ngeen njàpp tey njàpp démb ak njàpp tey. non am na différence bu baax. Sidi génn ci carrière am Ndeye Ndiaye bànne yaa gis nga ni meloon ñëpp di ko daw. Mhm. kenn nagul woon ne kii man man man man man sama nit la Sidi moo ko jëli ji dafa ci wetam ne ko kaay man sa papa laa. dëgg nga wax ndeysaan. dinaa la dinaa la doomoo te ko seen di ko way di ko way di ko way di ko way di ba mu liggéeyloo. léegi yow lan lan ngay wax sénégalais yi lan lan ngay wax sénégalais yi si Sidi Diop ban message ngay lancer sénégalais yi ñu ñuy seetaan à travers notre plateforme aussi Sidi Diop ban message nga leen di lancer amul message bu lu mu yàgg yàgg yàgg Sidi soo Sénégal da koy da koy da koy ub seen dàkk woy ba mil ndeysaan waaw kon ñun amul benn message bi ñu lancer Sidi Diop lu ñaan ak moo dàq gars yi woy mais xam nga ne Sénégal fii Sidi Diop fi dàq way xam nga loolu ku ma am ndey moo fa am ak ku ma amul ndey rek maa ngi en direct émission ñëpp ñu may dégg ñoom ñi may seetaan ñu may dégg xam Sénégal ku fi yor micro de way Sidi wala dàq way loolu leer ndeysaan léegi lan la lan la xaar si Sidi Diop lan la ñu xaar si Sidi Diop pour l'instant nii nii nii barki alxuraan contrat mu leen ko ba mille moo ëpp ay contrat fii si Sénégal ba mille ah bon kon ba mille kon décembre bi yaakaar naa programme yi bëri na incha allahu rabbi incha allahu rabbi laa la wax. Mhm. la 30 la 30 mi ngi Sénégal la 31 décembre mi ngi Sénégal la 29 day dem Zénith. day dem fan. Zénith incha allahu rabbi. oh kon kon Sidy dafa fees si si décembre bi. waaw. maanaam niveau niveau Sidy dafa yéeg. laay ni ko kooku déggoo la ma la de. Uh-huh. doom bu jur papa la doom bu jur papa xam nga doom bu jur papa. doom bu jur papa loo bëgg a foofu Barito. waaw yow sa langage dafa xaw a côté quoi. nit ki nit ki di ko jur mu tourné nekk kilifa. Mm-hmm. waaw li may wax nii ñi may seetaan bu nekkee ay mag lañ xam ne may wax comme xaar naa comme comme xaar naa mais man dégg naa Waly Balago Seck wax Sidi Diop ak njàpp ay doomam lañ mais noo gisee réponse noo gisee réponse Sidi bi benn bàyyi laa am mooy mooy mooy Omar Diop dama ne ne dee ndax booy bi da leen dàq communiqué non Sidi da tontu sévèrement Sidi Sidi nee leen man du ma wàcce doomu koo tuddal doomu aadama ba dégg sa a bu ñu ñëwee sama seen dama leen yëkkati mm-hmm. mais loolu bu ko déggee bu nekkee nit la dafa waroon dee ba pare ne ko yow way waa midi Sénégal fi ko jëlee fi nga ko yóbbu gis nañ ko rafet na trop ndeysaan ndeysaan gis naa loolu man loolu dama koy rafetlu ay temps animateur mais booy bi mais booy bi lan moo tax mu gën ne xale pare gën leen xam àdduna lu tax loolu non Sidi dafa doy waar leen communiqué dafa doy waar ah Sidi dafa a a léegi léegi man daka man nañ jàpp ne fii ak quelque time Sidy Diop mooy téye musique Sénégal ñoom lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ñoom ñi fi nekk di woy yëpp buñ teewul xaalis Sidy Diop mhm. dinañ bokk ci tëggkat yi <laughs> ñoom ñëpp nag Barito maa ngi lay jaajëfal Barito kontaan naa Barito kontaan naa ah? kontaan naa maa ngi lay jaajëfal bu baax allo allo mais di Je invité bu baax ah. merci merci beaucoup mon frère xamna dinañ la vous avez dit que ok ok vous nga nuyul que vous sa xarit gis tamit dem mu wax Sidi rafet. non non la que vous avez dit que dara ñaw mais mais ñun que vous la kenn barki mais mais mais yalla yalla ngeen que vous solidarité bi gis vous affaire yi na trop. bon à vous mon frère merci kontaan mon frère merci beaucoup alors merci beaucoup alors mu mu Barito Barito Barito bu Barito nak nek na buzz à travers son bi ko sidi Barito Barito doomu yaay momo alors gis intervention bi nga Barito indi nako euh, polémique bi nga entre Wally Blago Sek ak Sidy ba si mi nga mom ko indi ma ngi toll woon si zo mi nga xam da demone ñaan blago auto gis nañ ni chat euh, daf ko wala jël oto may Thiat Seck te xamutoon ban genre oto la yàlla def oto bi Thiat sekk nee na baaxul loolu indi fi ay polémique Thiat Seck di wax ci média yi wala may na ko oto bu baaxul après loolu tout juste problème bi ñu gis ñàpp zoo ñëw yéeg si seen bi la ko sekk fecc ba pare di ko ñaan oto sénégalais yi di calculer am na ñenn si journalistes yi di calculer njàpp zoo est-ce que nekkul sama euh, genre tonton waagaan yi ñoo ko conseillé ñoo xam ne à travers euh, problème yi nga gis am na entre Wally Seck ak Thiat Seck boo demee ñaani Wally oto vite fait dala koy may pour faj mer mais Wally bala ko sekk feneen la fëllee ndax bi ko njàpp zoo ñaanee oto Wally def ko ne yow ak sa patron samay doom ngeen boo demee nga nuyul ma ko foofu tamit am na beneen problème ndax li mu ne yow ak sa patron samay doom ngeen maanaam njàpp yow ak Sidi Diop sama ay doom ngeen Sidi Diop tontu na ci lolu avant may ñëw ci réponse suite bi damay continuer ci Wally Ballago Seck après bu ko waxee yow ak sa euh, patron samay dom ngeen nee na jàpp zoo après maag yow dañuy déggante promettre ko auto joxu ko mais waxu ko ne duma la may auto toute façon nee ko après man ak yow dañuy déggante du coup ñu gis démb Sidi Diop euh, tontu ci euh, rep si waxu Wally Ballago Seck ndax gis nañ ni Sidi Diop démb dafa amone match

njàpp mi nga xam ne moom moo demoon di ñaani Wally Ballago Seck oto nee na ku bon kon Wally Seck bu doonee papam day doon papay njabootam te njabootam bi ay responsable lañ moom seen patron la mais du seen papa sénégalais yi wax carrément que ni réponse su Sidi Diop bi dafa xaw a sévère Sidi mënoon na ko yombal rek mais également gis nañ Sidi Diop euh, wax na lu nice ndax gis na euh, nee na gis na musique Sénégal fi ko Wally euh, jëlee ak fi ko Wally yóbbu ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax mais Wally Seck mënul doon papam te Wally Seck du papam alors tey lii lañ amoon euh, Cheikh Dental TV lii actualité ci musique Sénégal on vous donne rendez-vous également si kanam tuuti rek wala à demain mën nañ leen indiwaat yeneen information ndax information yi ni muy ñëw ci Sénégal noonu lañ koy indee ci Dental TV noonu lañ koy indee jox ko ñi nga xamante ni ñoo di suñu ay fleurs merci à tous et à tous on vous donne rendez-vous à très bientôt sur Dental TV